sayu tàngoor mësaana jot géej yi dañu daan fees dell ak i nit ñenn ñi nekk ci ndox mi di sangu ña ca des wutali tànt yi waxtaan ataaya lakk jën ak yu mel ñu daan faral di ko fi gis atum ren nag coppite daldi di dikk e ci week bi tekk tekkaaral lañ fa nemmeeku ay tànt yu wéet lool géej gi naka noonee ay sàndarme samp seeni bâche jàkkaarloog ndox mi léeg-léeg sax ñu amal ay doxantu ngir caytu ñi fay ñëw fu ne ñu takk fa ay caax lu ni mel di firndeel tëjuteeb bërëb gi ngir rekk saafonteeg ndogal li nga xam ni moom la nguur jël gannaaw bi mbas mi lëmbee dëkk bi ndogal loole tax sax ñu bari daanaka dematuñu géej mu doon lu waay daan doole yi di mettit lu lool. xam nga ne géej ñetti weer la rek euh, mooy tàngoor bi muy mois d'août ak yeneen yeneen weer yi xamante ne ñoo ñoo gën a tàng sa ngay mun a liggéey denc loo mën a dundee ci hiver bi kon soo liggéeyul trois mois ñi tëj ko liggéeyoo day day day métti waaye méttit bi tamit ñun dañ koy muñ parce que nguur moo jël ndogalam nguur moom bu waxee waaw rek la ci mën a tegu. Naka Dia ñu fekk ko ci bërepp bi muy jaayee daanaka sax tej na buntu yépp génné ab tablam ci biti tok jakarlo géej gi waxtu bi dan ko fekk muy marine wala sax di lak jeun pour kiliyaanam yi waaye gis leen sax don lu jafé lool pour le moment wax deug rek dara du ko fi parce que gendarme yi ku jégué ni dakh la ñu ngi si média yi chaque jour du wone télé plage ken ñewul kay bëgg ah am jom bañ a toog kër ga si nga doon ñëw nga jaay am junne léegi dangay jaay pour am téeméer da lay téye waaye ñun dañuy gëm rek toog ñëw daan suñu doolee naan suñu attaaye bu ñu jaayee baax na bu ñu jaayee la ñibbi waaye xam nga loolu du wëy doo def sa fere war a jaay jaayoo nga wàññeewaat nga koy mayee ñi di lekk wala ngeen koy lekkaat te nga nekk borom kër day métti loolu wax dëgg yàlla. ba ñu doxantoo géeju ngor wéetaay lañ fa nemmeeku tamit. fii ñi jotoon a samp seeni parasol daldi nañu lemmi lépp gaal yi daan jokkalante village bi ak île bi daldi nañu taxaw tout tànk yi nag léeg-léeg ñu daw wutali ndoxu géej gi waaye du mat ay simili sandarme yi ñëw génne leen ci noonee lañu traversé wutali île bi fii nag yéeg wala wàcc ci gaal gi mooy tax nga laal ndox mi lu ko wees mënoo ci sangu ñàkk sangu boobee tax ñu bari dematuñu ci île de Ngor mu doon lu restaurateur yi di ñaawlu lool. donc sama fond roulement yépp vide naa ko client ñëwul dara ñëwul voilà ku mënul sangu mën la toog si plage mais doo ñëw si plage parce que doo jëg sa kër enfermé na damay ñëw m'oxygéner jël un bol d'air ñëw si benn île toog ñu la doo toog si plage bi doo sangu si géej gi donc amul sens que fii ne parce que ñëwuloo jógloo fu ñu tëj pour ñu tëjuwaat. Et c'est vraiment dommage. muy du Besseyaawo di géeju Ngor activité yep dal di tembe tax rek dolei disa kungur di ngir mu gëstu leen. buñ sañoon moom nguur gi jàppale si rek bu nekkee place bi dañuy wax ne nit ñi nañ sol ay masque wala ñuy diwoo gel affaire yooyu xam nga loolu dina nekk loo xam te ne dina xaw a tane daal mais tëj bi daal metti na trop waaw te boo xoolee yeneen côté yi yëpp ñu ngi tijji mais place rek lañ xawa a mais buñ sañon ñu ñu ñu woyofal affaire bi daal ñu woyofal niñ ko défé ni war nañu gëstu ñun yërëm ñu parce que gaay ñu ngi commencé sonn gars ñun sax son nañu waaye même ñi nekk ci biir kër yi dinañ sonn ñun lañu lañu lu ñu lu ñu sonn euh, ñi nekk ci biir kër yi bëgg a ndax seen njaboot fii plage bi dafa yaatu bis yaawu dafa am espace nekkul plage bu xat aération mu ngi fu nekk fii tey bu ñu wàcce woon fii ay ay gendarme ay sapeur pompier bool ci maître nageur yi. ñi fekk si ñun ñi xamante ne ñooy njaatig yi ñun tamit dinañ mën a wax ak client yi ñu jël seen seen distance te boo gisee ñun suñu restaurant yi génnoon suñu bagage yëpp ñaar taabal ñetti taabal lañ génnee teg toog xaar xaar yàlla te ku ñëw boo lekkee dañ naan la jógal dem presque bëgguñu rassemblement bi waaye am na ñu bëri dañu yaakaar ne plage bi amul amul amul amul kenn parce que ñun tamit du ñu nangu lu nguur wax ñi tëgg ay kàddoom waaye dafa am fooy toll tamit day métti suñu wax dëgg yàlla. Ah, il faut que état aussi jëm leen jàppale ci côté boobu.

waaye tamit respecter mesures barrières yi nga xam ni moom la sur l'île c'est quelque chose qui est facile à contrôler qui les gens traverser et qu'on limite le nombre de personnes qui viennent jàppale comme armée fi mu nekk moom moo gérer parce que moom ñoom la ko jox pour ñu pour ñu jàppale pour gérer ko mais ñu ne armée ñi ñu ñu xool distanciation yi respecté ko toog plage bi bañ a def regroupement yi rassemblement yi bañ a am nit ñi mën dugg si ndax bi

voilà donc c'est ce ça sax suñu teewaay fii euh, am solo parce que nous sommes ñenn ñi xam plage de Fayatou, c'est la grande côte donc nous am nit ñoo même bu gendarme si côté donc nous leen di sommes à dugg côté voilà foo xam ay gendarme nekk parce que gendarme mënuñu mënuñu nekk fépp looloo tax nous ñun ñu ñu sax euh, euh, nous bi donc créer ay postes avancés plage parce que plage de dafa pour Dimboli, force de défense et de sécurité faut Nous fa donc ñun nous nekk fa euh, di di di di di di nous ñi nga euh, euh, a ndigal bi nga autorité bi su ko a intervenir. ci intervention yooyee la jot nañ ci nous loxo ay nit Nous personnes si ma connaissance ça c'est le début tout début est difficile pense que c'était le début bu ça soo commencé depuis lors jàppate ñu fi kenn. gis nañ fi ay ay ay ay euh, récalcitrants yoo xam ne gendarmerie jàpp nañ leen ah bu boobaa aussi li li nga xam te ne wax na ko euh, je pense que dañ leen koy teg parce que aussi euh, mesure la boo xam dafa war concerner tout le monde. bu doon mbas mi kon autorité bi du jël mesure yooyu kon dinañ def comme niñ dan def di leen bay ñuy sangu ak yu démé nonu mais mbass mi motax ñu jël mesure yooyu pour que euh, virus bi bañ propagé aussi au niveau des plages. au niveau de la banlieue gis nga ni ñuy xeexee ak ak force de l'ordre yi te loolu lu jaaduwul la parce que ku lay aar waroo xeex ak voilà pour rek dem sangu ji géej Ibrahima Fall moom maître nageur bi di ñu xamal ni depuis que nguur tere dajaloo yeeg sangu ci géej yi ay cas de noyade maanaam nit yuy lab déggatuñu ko fii. avant ñuy jël mesure bi rek amoon nañ 32 morts par noyade donc mesure bi mu ñëwee déggatuñ benn cas de noyade je pense que loolu mesure bi am na lu mu ci defar lu bari. donc euh, ñu bañ c'est des ci pression populaire rek voilà parce que nit ñi parfois euh, bu ñu leen topp aussi ci la leen neex parce que mbas mi dafa nekk loo xam ne ñëpp la concerné tey suñu leen bàyyee ñu tas fii euh, virus bi mën a tas fii ñun sax nekkuñu à l'abri maanaam ñun sax duñ ci mucc. taxaw seetlu bi doon benn daanaka kenn dematul géej lépp tagatémbe terewul waaye daan doole yi saa suñu xëyee ubbi seeni bërëbu jaayekaay jàkkaarloo géej gi di dundee yaakaar